waxuñu ko euh, Sénégalais yi wala dafa am lu nga xamante ne xëy na euh, njuuj njaaj du ñu def ci suuf que lu Sénégalais yi yëgul. évidemment ah oui. mais le président Macky Sall mais le président Macky Sall moom génn na nee na amul benn accord bu nga xamante ne am na ko ak ma ne. kon yow gëmoo loolu. ma ne waxtu yegg ay dafa ko moom. mënoo jël waa ñu tëj ko ci kaso bi wax ñu ay terroriste

tey Aïssatou, soxlawul ñuy wax kenn ne waxtaan am na ñoom ne waxtaan am na xam nga waa ji bi comme laalo day wax rek moom moo ne waxtaan am na ne waxtaan nañu yegg nañu sax ba dem kër fay Sall ñu naan ko tata ak ñoom in seen ak ceeb bi neex xam nga ça pose problème y a quelqu'un qui est sorti qui a dit telle date Ousmane Sonko nous na ak otoom taxaw ci wetu kër Macky Sall photo de ngi nii jox nañ ko temps dem na da nga dégg nous li ngay dégg ñuy nous, nous, nous manipuler c'est comme quand j'ai dit à Ousmane Sonko ak sénégalais wax ne bo démé assemblée nationale da ngay dama ne leen du def parce que dafa am ay xaritu góor jigéen yu bees man man man nëbbuma wax ji Ousmane Sonko moo dalal Mélenchon Sénégal Mélenchon ñëw fëgg dënnam à l'université jàkkaarloog suñu étudiants yi ne leen man maa xeex France góor ak góor di sëy man maa xeex France nee na jigéen ak jigéen di sëy Ousmane Sonko daggee ci langue gi ne ko fii sax de Sénégal góor jigéen dañu koy tolérer pour wut lu neex waa ji problème là. la bu fekkee ne mon premier ministre nangu na tolérance góor jigéen waaw boo ko joxee assemblée nationale di nga xeex góor jigéen dañoo waxante dëgg rek nga gis biram xujaloo bokk pastef top ci responsable yu pastef yi nga dégg ko public SN mu ne lan nañu bàyyi di joxoñ góor jigéen yi di leen joxoñ baaraamu tuuma dañu am ay droit dañ leen war a warmaal dañ leen war a na c'est lui qui l'a dit man waxuma ko nga dem Mbàkke boy choro parce que duma yegg ci ci ci ci sante bi boy choro ne jeeg la nee na mom jeeg la seyna ak Ousmane Sonko te tas mané ne nañ ko wutal seru nal ak ñomine set pour seyam neex yow ñu ngi naan ay góor jigen da ngeen di jàppale góor jigen ni punk lu góor mu magum jëm taxaw naan ay wuy man damay sey man jeeg la ba lan ngeen bëgg da ngeen bëgg suñu doom yi nek ay ay ay ay ay ay ay yambar eh Amérique mu ëpp doole ci àdduna Donald Trump lu ñu c'est un investisseur c'est un fin businessman mais lan moo tax Amérique fal Donald Trump parce que républicains yi c'est des conservateurs républicains yi dañuy xeex góor jigéen dañuy xeex lesbianisme dañuy xeex euh, ay affaire d'avortement. Ils yëpp dañ koy xeex mais moo tax ñu fal Donald Trump Amerik bu ñu mënee di xeex góor jigéen ba jël Donald Trump fal ko ñun Sénégal dañuy am ministre premier ministre buy toléré góor jigéen ñu bàyyi ko fi yàlla du wàcc étasal kenn këram bu ngeen buggee ñu defar réew mi il faut kenn ku nekk ci ñun nangu jël responsabilité beneen bi ci des ñun ñëpp dafa am lu ñu gëm dañu yaakaar suñuy tarixa Cheikh Oumar Diagne pour ne pas le nommer Boy Diagne parce que Cheikh bi jaru nee na mbindum cheikhul xadim mbindum mam bamba mbind mi jubul dañ ko war a jubbanti ngeen baal ma ci kàddu gi nee na Seydi Hadj Malick li mu bind lépp war nañ ko xoolaat parce que dafa am ay ndëngte mu ne ñun ñii ami tarixa suñuy tarixa ay conglomérat d'intérêt la bañ na ko ba ne nee na addiye gi ñuy joxe blanchiment d'argent la

woteel nga Cheikh Oumar Diagne Cheikh Oumar Diagne ku ko woteel ci élection yii ñu jëm bokk nga ci liy nërmeel tarixe yi ci réew mi man waxuma dara de damay fàttali rek parce que li ma la wax lépp ñoom ñoo ko wax ñoo ko teg ci taabal ji alors est-ce que dañu war a seetaan réew mi waa léegi bu weesoo ñoom seen ràmmiñ bu rattaxle nga xam ne lu ne la ñuy wax mais venons-en au réew mi dox na walla doxul dégg naa boy yi ñuy way benn way naan ba ngeen ñëwee ba tey réew mi doxatul mais loolu soxlawul boy yi di ko way parce que yéen ñii di régler problème yi ci biir kër yi yéen a ko gën a xam ñëpp heureusement que ngay takk ay verre parce que sinon xam naa ne sa wayafal rouge bi mun na la mun na la sonal Aïssatou hmm? mais parce que ce pays ne marche plus premier trimestre kan moo yore woon réew mi du Macky Sall deuxième trimestre réew Quand kan moo ko yore ok kañ la fi FMI ñëw juin fin juillet euh, fin juin début juillet C'est le premier communiqué lu ñu wax nice trimestre boobu li ñu ko nice good nice fine affaire yi amul problème yegg nañu sax ba ne Sénégal am ngeen sur liquidité yore ngeen xaalis boo xam ne bari na ëpp na seeni soxla dëgg la wala du dëgg FMI loolu la waxoon le soir, dans le troisième trimestre veut dire le troisième trimestre effectivement en septembre FMI dellu siwaat attention, wax attention am a un déficit de 1200 milliards c'est une prévision budgétaire du premier semestre bi ça. Il y a ba secteur qui a secteurs qui a attention secteurs yi ngi problème BTP le secteur minier et agro-industrie ñaari secteur yu njëkk yi lu tax mu am problème parce que benn nit moo jël ci moom décision ne dafay arrêté lu jëm ci BTP on cite au Sénégal ne bu fa kenn defati opération foncière alors que ku nekk xam na ne bâtiment moo yore réew si le bâtiment marche réew dox bu bâtiment réew arrêté c'est au moins 100 000 ouvriers qui ont Ousmane Sonko au chômage. mais est-ce que saytu bi mais mën continuer arrêté continuer ngay saytu mais mais xam nga il faut non non non manager

parce que bo taxawale activité bi moy li lay wax sank suñuy kilifa bu ñuy jël décision dañu wara xam conséquences yi muy engendrer waji ji muy wax ne xam nga moy li lay wax rek dafa ra rataxle lepp mo koy wax dafa ne chiffres yi ñuy jël pour dem gis tubaab yi leb leen xaalis chiffres yooyu dañ ko maquiller ay yow yaa may lebal xaalis man ma yor sama làmmiñ dem taxaw ci rajo yeeg télé yi naan leen ay soto mi may lebal xaalis de dama koy dóor marto bu ma dellu si waatee pour leb la di ma lebal mais moo tax FMI ne leen ok comme chiffre yi ngeen ma doon jox da ngeen ma doon dóor léegi jox ngeen ko justice mooy cour des comptes nañu xaar ba cour des comptes wax ñu ndax chiffre yi ngeen ma doon dóore dëgg la wala du dëgg Si vous bu un ne da nga ne Cour des ne waaw chiffres ne milliards va plus rien te donner pourquoi parce que qui qui nous amul filtre madame amul filtre xel bi lu mu du am lu koy filtre day génn rek day tiit wax c'est-à-dire que dem ba au Sénégalais et vous pensez que nous devons continuer comme ça c'est un problème

cour des comptes bu waxé Ousmane Sonko wax ban wax moy deug ñu né est-ce que da nga am preuve yi document ya ngi bi le service de la dette 2019 2021 certifié par la cour des comptes Benen bi ci le document de conformité bi nga xamné moy budget bu 2022 cour des comptes mon ma jox leen date yi ñu ne ma bàyyi ne papier yi jox nu document yi man leen du ma leen jox samay document wuti leen ko Aïssatou 2023 yéen liggéeykat yi li état doon jël ci yéen ci xaalis impôt sur les revenus premier semestre 2023 xam nga ñaata la woon 21 milliards bi ñu commencé seen jikko daggkatu juuti yi ñëw di sonal nit ñi premier semestre 2024 nous nga encaissé 11 hmm? milliards 10 milliards de gap un déficit bi FMI di wax au niveau du port ki yor Dubaï dem Chine dem Turquie dem Italie jëndi Sénégal luy ci état la yor ñu le port encaissé à travers des recettes douanières